diggante euh, Ama Baldé ak Modou Lo coow li bari na làmb ji yàgg nañ koo bëgg noo gisee boobu komba ak nan nga koy analyser. waaw ah, combat boobu combat bu neex la combat jànq bu neex la. combat bu neex combat bu daax ci combat yi sax moom am na seen rajo gerteem combat bu neex lay doom combat yi combat yi la ñaanal baabu ñu yàlla may kan ndam combat moo xoyantaan amee dem tamit loolu rek seen combat moom tamit yàlla may nañ ndam ñun ñëpp waa Thiaré ku ne Thiaré yàlla may ndam sa combat mais dama la xam ne ñaar mooy combat kii Ama Baldé. xam boobu suñuy laale mi jeex. suñuy. laale mi jeex. incha allah ñu jàppante mu jeex. waaw maa la ko wax incha allah. gaa yi naan dina am xeex bu neex dina am bëre bu neex nga ne bu ñu jàppante benn yoon. xeex lu bëri sax xeex na fekk ñaar la neex rek xeex. day fekk mu neex ñaari mbër. waaw non yow mu doon xeexkat làmb si yàgg xeex yow nga ma gàllankoor law xam doo sori si làmb